vétérinaire ba. waaye xam naa député bi nag d'accordul pour ñu jël xar mi dugal ko ci biir. otoom bi da koy xeeñal wala mu taxal ko. waaw fa la coow li tàmbale jox leen lu ñu luwee taxi. ah kay waay ah, kay léegi nag lu tax nga dugal ko ceeg maa ngi jéggaloog dugg na fi génn fi dàq chauffeur ba moom am na waaye mbir ma nag police la teeree ji. ba ñu ne chauffeur ba dañ koo teg loxo. Mm-hmm. en tout cas daal nañ déglu nañ déglu nañ déglu chauffeur bi. ñun mm-hmm. ay chauffeuru assemblée nationale lañ. ñun ñii chauffeur yi fa nekk yoo xam ne amuñu contrat. ñun dañoo am lu ñu metti ndax instant yi ñun si bëri ñu ngi ñuy sonal di ñu toroxal. ndax député yi xamuñu ak chauffeur. ndax chauffeur da nga koo war a fonk. ndax moo moo yor sa bakkan tey instant yi ñu nekk nii élection yi nii fu ne ngay dugg si Sénégal. problème bi lan la yow ci nga wax ne da laa sonal. Mm-hmm. ci député bi may dawalal nii ku ma def lu ma metti nii ñu liggéey ñaari weer presque beneen baa ngi nii mooy dem nii gis nga barki démb si mardi bi dama xëy si si moom dana ma day génn ma xëy si ba ma xëy see mu toog ay dix heures onze heures moins am koo xam ne moo fa nekk si kër gi moom lay yónni toujours moom lay yónni si affaire am yëpp kooku ñëw ne ma maire bi jox na ma dix mille francs nee na ñu dem pikir xar bi léegi man ma ne ko ah maire bi moo la ko wax mu ne ma waaw jox na ma dix mille francs yi ñu ne ñu dem pikir xar bi Pikine léegi man ma jël génnee oto bi dem jël xar bi dugal ko ci maal bi ñu dem pikiiri xar bi pikin bay dellu si mu woo ma si yoon bi ne ma sew lu tax nga jël xar bi dugal ko si maal bi te amoo loo falal ma ne ko ah loolu dëgg la après naa ko bale après man ma jël portable bi jox ko ku ma àndal koo xam ne moom moo ne ma maire bi nee na ñu dem pikiiri xar bi mu waxal ak moom wax ak moom wax ak moom ba kooku mer ba mu meree mu ne day wàcc ak xar bi yëpp mu yenu ko ñëw kër gi ma ne ko comme man maa ngi ñëw damay dem si kër ga yow dangay dem si kër ga toogal si oto bi ñu dem suñu demee ñu ne ko mal entente la ñu jégalu ko mu jeex booy bi ne mukk mer bi lu mu ko wax metti na ko mu wàcc ak xar bi yenu xar bi man ma avancé ak oto bi ñëw ba ma ñëwee ba si buntu kër gi gaaree mu ñëw ne ma yow lu tax nga def ni nii nii ma ma noppi ma noppi mu ubbi maalu oto bi si ginnaaw mu gis xar bi karaw xar yi ak yooyu noonu day nii gis nga léegi mu ne ma lii da nga koy bale ba mu set comme nu mu nekkoon ndax oto député la waroo fa dugal xar bi te xaram la moo ko moom moo ñu yónni ma ne ko amul problème ma sëgg di bale di bale oto bi mu dugg si kër gi génnaat encore mu ñëw ne ma soo balee oto ba pare nga gaare ma sama oto tëjal ma sama oto nga ñëw jox ma samay caabi dàkk naa la ma ne ko comme jox naa la sa caabi maman dama bëgg wax ak yow mu ne ma aw ma sa jot mu ne ko ah ku yow maa ngi lay liggéeyal man maay sa chauffeur naa lay liggéey presque deux mois tee nga maa déglu comme maa ngi dem ndax nga ma maa ngi dem déglu ma rek ma wax la lu nekk sama xol mu ne ma en tout cas amul sama jot an amul sama jot amul sama jot naa génn kër gi mu may dàq comme xaj dama la bëgg a wax lu mu néew néew néew nu mu tuuti tuuti nga jox ma lu ma ameel si xaalis man ma dem ñibbi man borom kër la ma war a bàyyi sama kër leneen leneen leneen mu ne ma en tout cas naa génn këram man su dee man dinaa am si moom un franc CFA nga xam ne man yàlla may na ma moom joxuma dara mu may dàq dàq dàq ma génn toog noonu si miir bi noonu ci benn brique dama toog ba si jékki-jékki rek police ginnaaw raay ñoo ñëw ak seen oto six éléments ñoo ñëw ak seen oto ñëw fekk ma fu toog ñu ne ma yéegal si oto ma ne leen lan laa def ñu ne ma député bi nee na yow yaa ko ma ne leen ah, ma ne comme ay homme de tenue lañ bëgguma xëccoo ak ñoom ma yéeg si oto bi euh, booy bi euh, grand bi euh, ñëw ne ma maire bi nee na ñu yóbbu xar bi si docteur bi mu piquer ko mu ñëw mu ne policier yi kii du dem di ma fi bàyyi ndax problème bi am nii man maa tax ba problème bi am policier yi ne ko ñun soxlawuñu la ñun kii lañu soxla ñoom ñu yóbbu ma ak oto bi ñu dem ma si commandant bi moom moo ma laaj mu expliqué ko cas bi yëpp nu mu demee mu jël sama numéro jël sama kii ba pare ne ma demal ñibbi ba may ñibbi noonu si yoon bi député bi si boppam mbokko mi ñu woo ma ne ma yow da nga jotee ak député bi waaw léegi lan la leen jotee ma expliqué leen ñu ne ma ñaata la la ameel ak combien jour liggéey ma leen téeméer jusqu'à le 22 le 22 2500 2500 dina coûter 55000 ñu calculer ko muy loolu te moom député bi ba ñuy waxaale fay bi dafa ne ma rek tabax këram naa ko dimbale mu fay ma 75000 gis nga en tant que chauffeur nga fay ko 75000 ba pare doo ko may jàmm léegi après mbokkoo mi ba ñu laajtee loolu ba pare ñu yëkkati 55000 jox ma ñu ne ma dañoo bëgg fay coow li problème bu mu am problème bi bu mu am ndax xam nañu kii dafa problème boo xam ne comme moo la ëpp doole. waaw mbokkam yi wax loolu ñu ne kii xam nañ ko. mën na la dugal si problème boo xam ne doo ko mën a doo si mun a génn ma jël xaalis bi dem ma ne bàyyi naa lépp ma egg sama kër di simmeeku pour waaj a sangu ñu woo ma téléphone rakk rakk député bu góor bi mu woo ma téléphone ne ma delloo sil xaalis bi si maire yi ndax maire yi waruñu la fay député bi moo la war a fay te maire bi député bi moom yaayam la ñeneen ñi magam lañu ak yooyu ñoo fa nekkoon ñoom ñoo ma wàññil xaalis jox ma cinquante cinq da ko delloo xaalis baa ngi si man te xaalis bi ba ma egsee ba ma egsee fii sama kër comme man dàq nañ ma amatuma liggéey ma ne balaa may yor xaalis bi di ko yàq xaaral man maa ngi yor njaboot yor jabar yor ay njaboot xaaral ma jëndi ko ravitaillement ak leneen leneen ma bàyyi ko kër ga an euh, si ma dem uti liggéey su balaa may am dina fekk li ma ut nii bàyyi kër ga du jeexagum ma ma kii ba mu ne ma delloo si xaalis bi ma ne ko instant yi man dafa guddi mënumaa dellu siwaat ba ginnaaw raay mu ne ma en tout cas day woo commissaire commissaire bi woo ma moom daa coupé après si kanam tuuti waa police ginnaaw raay ñu woo ma ñu ne ma waa police ginnaaw raay ñoo la soxla ñëwal man leen comme nii la bàyyi ba suba demain matin ma ñëw gis nga demain matin ma dem ba ma demee ñu ne ma yow lu tax ñu lay jox xaalis te ñun wax nañ la demal ñu lay ñeewoo la di jox xaalis nga jël ma ne leen comme mbokkam mi dañoo bëgg a fay coow li te sama xaalis la moom moo ma ko yoreel mbokkam mi bëgg fay coow li te moom moo ma ëpp doole comme nu mu ko nu nu koy wanee nii moo ma ëpp doole si gouvernement bi mun na ma kereel comme nu muy wooyee policiers yi nii ñu kidnappé ma yóbbu ma loolu yëpp ma bañ coow li ma éviter yooyu man borom njaboot laa maa ngi bàyyi njaboot njaboot si kër ma jël xaalis man instant yi dama bëgg ngir yàlla instant yi man maa ngi si loxo police suba suba vendredi suba police ñu ne man naa dem police ginnaaw raay ñu ne naa dem te moom wax na leen carrément xaalis bi su ma ko delloowul nañ ma defeere nañ ma defeere te sama xaalis la góor gi sama xaalis la man maa ngi ñaan képp kuy kilifa Sénégal kuy ministre député muy président si boppam ngeen déglu ma ak bërëb euh, kilifa réew mi ñi ñi mën a dimbale doomu aadama yi si réew mi ngeen dimbale ma te yàlla tax ngeen taxaw ma ndax député bi mu may jaay doole ñi néewloo doole te man awma doole euh, Chimère bon lii moom alaaji moom yaakaar ni solution dina ci am ah. député bi sax amul doole. non non non lii sax. yàlla doo nga am doole non ba samedi la mujj am info ci moom te police tegaatoon na ko loxo. tegaat loxo tegaatoon ko loxo samedi ni ko delloowal député bi. xaalis bi la mbokk mi jox bu mu delloo dara. député bi moo ñëw nee na ko delloo xaalis bi. wala ñu defee rek dara xaalis boobu lan la wax sax mu ne 57000 la. xaw ma la 55000 bu mu delloo dara. 55000. mais ba samedi daal moom mi ngi woon ci loxol polisu ginnaaw raay. ba ah, samedi non non non non donc depuis samedi léegi amuñu benn info ci moom. non xam nga ñun fii ñu toog nii alaaji. Mhm. fii ñu toog nii lan ñu yónnee message wax ñu wax ñu wax ñu député bi ba pare ci jiite chauffeur yi nekk ci administration bi tamit ñoom kilif tam dañoo bëgg a wax ndax chauffeur yi tamit. dañuy dund tamit ay jafe-jafe waaye. jaaduwul c'est pas député bon député boobu alaaji bon lii dina saafarawu daal. dina saafarawu waa ji kenn du ko defeere loolu loolu loolu histoire. na non non non loolu non non non non non non non lii lii non non lii lii du lii neex naa saafara alaaji de. yaakaar naa ne ay nit ñoom ñoo ca doxul rek waaye buñ ca doxoon ba léegi ni heure bi fii duñ fi yegg dafa dajoo la ku mel ni moom rek mais ay nit yeen ñoo ciy dox ah. dox ak ay mbokk yaay parce que nee na yaay député bi moo jug ak mbokk yaayam yi ay maire ñëw fay ko xaalis bi ko député bi yoreel ne na coow li fay na jeex xam nga jàmm moom ak médiation foofu la mën a yem mais moom mu ne dee ñooñu bu ñu fay xale bu góor bi xaalis bi na delloo force ñooñu xaalis bi xaar député bi fay ko ah bi kay bëggoon jàmm day jël 55 euh, millions rek remboursé ko yaayam ak mairie wax ji jeex mais dendi naa la jaay doole. lii lii non lii dina saafaraw lii lii man pour man alaaj lii nekkul dara de wala. non man kay li police. teeree kay sax man na maa métti lii lii warul yegg ci police. samedi rek téye nañ ko rek ba samedi. waaw non mais attends mais moom lan la def. moom man ban délit la def man boobu ko enregistré jeudi foog naa. moom. mu nga moom non attends da doon jote ak ak bi ba te bañ plainte duggoo la ko daa dóor député bi wala la. defu ko dara këram nga mu taxaw ne député bi na ko fay xaalisam ci leen ko njëkkoon jàppee. ne ko looy def kër jàmbur ne ko looy def kër jàmbur mu ne moom sama mm. xaalis la doon jëli non non non après ñu libéré ko ay mbokku député bi yaayu député bi ak ñeneen ñëw def médiation jox ko xaalis bi ñu ko yoree loon député bi nag ne lu tax yaayam ak mbokkam di jox xale bu góor bi xaalis sax ful la vraiment bi ko nit ñi xamee alaaj ah, léeg-léeg nag doo ne ah, ah, ñi bëgg la nag détails yii tax nit ñi nag weddi la ba faw xam naa ne bëgg nañ ko bëgg koo xam ne boo moytul ñi xamee ni diw mii la ñi nañ ko weddi déedéet ëpp naa def loolu sax moom nit ñi moom duñ ko xam ne na bàyyi nag kon ñun ñu bàyyi moom na bàyyi rek ñu bàyyi cinquante cinq mille cinquante cinq mille. déjà li jëkk te yoonu maanaam en tant que député à l' nationale. nga jël nit ki yow am fenn foofu fóoti am ay idées yooyu défendre ba Sénégalais yi bëgg la. waaw ngay propose nit ki salaire ci assemblée nationale. déjà ñaareel bi ci des. mënu mm-hmm. mënu mënu bëgg mënu bëgg aw yàpp bañu xetam mm-hmm. Mm-hmm. yow yaa leen da nga yar da nga yar xar yow. yaa leen wax ci bu ñu defalee vaccination. ma Euh, oto leneen nag leneen lépp dañ ko fiy bàyyi. ay député faloondoo nañu ak ñoom tey ñu ngi ci biir suuf dee nañu. dee nañu waaw ñetti député ñeent remplacé leen. ñetti député mu seex mu seex lu xaw ci maalu oto. bi sa propre bi sa propre xar yow nga dem ñu pi ñu ñu piqûre leen. ma ko sa te doomam moo ko ci xar bi ci des. ñetteel bi ci des nga ne ko dàq jox ma sama caabi dinañu dàq noonu nit. Hmm. ci digg mois xanaa am xaalis sax boo koy rendi doo ko rendee noonu. ci digg mois léegi ñett yooyu yëpp dajaloo après ñu jox kii amatoo yërmande ci ñoom mu dem jënd ay ravitaillement après tak jël sa téléphone woote police nangam nangam non yenu maanaa bu subaat naa tudd turam de déet ëpp naa def. ah waaw waaw moom kay waa ji buñ ko libéré wul moom fii suba moom ñu wax ni député bi kii la. non non non loolu dinañ ko libéré loolu kay bu ñu génnee fii rek dinañ ko libéré. incha allah génnee fii. dinañ ko libéré lii lii ko libéré wala ñu wax rek kan la. nañuy am am yërmande ci ci ci ci ci ci ñi ñuy ñu liggéeyloo. non non non loolu loolu loolu lay bi ngay fay ni ki defe ni luxe la. mais aussi nag euh, alaaji <laughs> benn côté côté côté bi tamit man li may laajte mooy. ba xam ba xam ndaw bind plainte police. ñu convoqué booy bi mu bañ a ñëw police dem jëli ko. wa ilaa ndax police moom dañ leen a woo rek ñu dem jëli. booy bi moom ci li mu wax ci li mu wax. waa ba mu demee ba ko député bi dàqee ni ko indil ma samay caabi dafa dem fekk ko këram ne ko na ko fay lim ko yoral comme dàq na ko nangu na dàq bi na ko fay foofu la ko police fekk ni ko yóbbu ko euh, commissariat ba ñu wax li ñu jote ñu ne ko waa kon na la fay sa xaalis deuxième fois bi mu ñooñu def médiation yaayu député bi ak mbokku député ba fay ko xaalis bi police woowaat ko mu demaat wuy ji ñu ne ko lan moo tax ngay nangu xaalis boobu moom mu ne leen jaay naa xaalis bi ñu ne ko kon suba vendredi na nga ñëwaat ah benn version lañu am Cheikh Sarr mais wax wax euh, comme on dit euh, wax bu wérul nopp yi koy déglu war a wér. wax bu wérul nopp yi koy déglu ñoo war a wér. quel que soit alpha na ko fay xaasam parce que waa ji ñëwul leen l'impossible moom bu ñu ko fayoon 55 millions ñu ko joxoon bu député bi demaatul woon police wax ji fay na. xale bu góor yi pare na ci xaalisam la exigé man sax mbir ma nam teeree ji police sax mm. normalement bu waa ji yóbbuwul député bi police député bi mënu koo yóbbu police quand même waaw kon nag loolu moom dëgg dong dee dëgg ah, ah dëgg dong dee dëgg ah ko bu dee dëgg dong la ñuy wax waaw non bu ko waa ji yóbbuwul police député bi mënu ko yóbbu ah. wax dëgg yàlla waaw ah, utiliser ay relation ci takk seen ndomba tànk ah vraiment yàlla doo nga am doole de ah doy na waar doy na waar. yàlla dong nga am doole. ay responsable ay leader yoo xam ne nii seen i ah. sëfër. bu nañ cent mille waaye waxantuma la député dëgg yàlla moom moom laa laaj. laa jëkkee député député bu ñuy fay bu bu buy fay sa kii soixante quinze mille. waaw ah. di ko ngand ngandaloo di ko xaaj. ay damay tabax sama kër. Ah, ambi yow day say sëfër moom. macha allah loolu laa jëkk a wax bilaahi. waaw waaw waaw am ñoo xam ne sa as salaire lañu lay fay ba noppi foog ni yow seenu jaam nga. ay 75000 nu ko nit di mën a waxee nit léegi ci Sénégal. ay 75000 léegi ay 100000. wallaay nu ko nit di mën a fayee nit ku yor njaboot am jabar ki doom te yow ngay laal presque 2 millions am oto am carburant am téléphone. naan ko damay tabax sama kër kër moo tax ma ah, lay fay. nii maanaam salaire bu bisu yaa nga nit ki. yow yaa nga nit parce que. yaa nga yaa nga yaa nga assemblée nationale. non lii lii alaaji lii dina saafara